que la Sénat tel que le code électoral le lui permet mën a substituer à la DGE pour joxe les fiches malheureusement bi ñu fekk ñu fii le président de la Sénat demain incha allah lui en tant que mandataire danañ ko gungewaat mu ñëw pour récupérer ay fiches am et espérons que cette fois-ci euh, la Sénat va continuer à appliquer la loi donc loolu moo doon suñu tànk fii malheureusement mënoon nañoo bañ a egg si fii yëpp. bu nekkoon dans un pays de droit où la justice joue son rôle l'exécutif joue son rôle le législatif joue son rôle mais on a l'impression ce n'est même plus une impression c'est une réalité que benn nit moo fi nekk muy Macky Sall moom mooy exécuté mooy justif mooy justice mooy légiféré loolu lañ gis c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal un juge rendre une décision état APR parce que man sax su may dégg naan état d' accord ma gars état amu fi APR moo nekk moo nekk ñoo am un président de parti au pouvoir nekk président la République def la ko neex c' un parti euh, c' est c' est un c' est état qui est là. c' la première fois un juge joxe une décision nga ne dañ ko appliqué di def du dilatoire te li ci gën a graaw dilatoire bi ñu koy def ce sont des supposés hommes de droit président ay wax na ko léegi le ministre de l' intérieur il a été nationale. mais en fait soo ko xoolee di nga di nga koy yërëm mais da am du dépit pour lui da ngay xam ni kii en fait il a perdu même son âme parce que un homme de droit un juriste lui avocat ancien défenseur des droits de l'homme moom la ñuy tey teg posé c'est-à-dire principe élémentaire en droit muy def dilatoire moom moo la gën a xam ne en tant qu'avocat cette cette décision là elle est exécutoire dañu ko war exécuter ça n'a rien à ak ay ay ay ay cour suprême ak cassation moo la gën a xam et pourtant ñoom ba ñuy daaneel Ousmane Sonko ba ñuy daaneel Ousmane Sonko ah mais il n'ont pas lési lésiné te ci ay caaxaan sax lañ ko daaneele mais ki seen caaxaan yooyu ñu ngi continuer di leen di appliquer une une certaine loi te ñun lii ñu dugg ni mais du caaxaan c'est un juge qui a rendu une décision mais ñu ñu bañ ko appliquer mais dañuy sonal seen bopp parce que ñoom li ñu daj ci président Ousmane Sonko yëpp jël. la sécurité toute la sécurité de ce pays teg ko ci kaw président Ousmane jël toute la justice de ce pays teg ko ci kaw président Ousmane Sonko jël toute la administration de ce pays teg ko ci kaw président Ousmane Sonko te ba léegi Ousmane Sonko fee mu nekk mu ngi kon ne di leen solo donc bu ñu amee xel tuuti gëm yàlla tuuti war nañ xam ne lii ils doivent arrêter parce que rien absolument rien luy jóge ci ñoom luy dépendre ci ñoom en tant qu' être humain mënul empêcher président Ousmane Sonko mu nekk candidat te lii moo ko wane. mais parrainage bi mu commencé ba léegi honorable euh, gis nañu ni en tout cas euh, jege na vingt jours. waaw est ce que nekkuñu quand même di bu baax. waaw mais ñoom loolu lañ bëgg dilatoire la def parce que tey boo xoolee xam nañ ni président Ousmane Sonko à lui seul à lui seul wàcc ci terrain bi ay nitam wàcc ci terrain bi di parrainer mooy ne mooy ne l' élection est déjà pliée ñoom li ñuy def yëpp dañ ko calculer ils ont mis un c'est du dilatoire pour le retarder c'est ça xam nañ ko ñoo lu gën a xam parce que tey boo xoolee ay avocats de l'État dem ba à la cour de justice la CEDEAO gàcce la tey ni ñu gàccelee Sénégal di def dilatoire foofu di laaj ay renvoi parce que encore maîtriser wuñu le fond du dossier kenn xamul c'est dañ dem ba ñàkkal fayda Sénégal ñàkkal nañ fayda fii l'État à l'interne mais ñàkkal nañ ko fayda à à mais si nga ñun c'est-à-dire que ñun ñun nous sommes des légalistes te ñi fi nekkoon di wax naan il faut respecter les décisions juridiques déggooto leen ñu wax Macky Sall moo wax fii en juillet ne il fera tout pour faire respecter les décisions de la justice boobu xam nga lu taxaw mu di ko wax Ousmane Sonko moo taxaw mu di ko wax c'est-à-dire que tey lépp loo xam ni justice teg na ko ci kaw Ousmane Sonko dinaa ko dinaa ko doxal yàlla nattoo ko justice wax loo xam ne bokkul ak moom la mu bëggoon ci Ousmane Sonko yàllaa ko nattu te beneen nattoo ngi ñëw donc dañuy sonal seen bokk suul ker du ko tere feeñ Ousmane Sonko incha allahu rabbi dina jël ay fiche de parrainage dina bokk ci élection présidentielle bi gis nga ñun benn jour de parrainage sax benn jour de parrainage c'est des millions de de signatures collecter loolu yàlla moo ko donc mënuñu ci dañuy sonal seen bopp maintenant nag dëkk bi dafa am yoon dëgg la mais gis nga yoon bu ñu demee ba amatul ci réew anarchie mooy installé et ils les principaux responsables de ce qui va se passer dans ce pays ñu ngi fooyee loo xam ni c'est pas nguur yàlla moo koy joxe président Ousmane Sonko c'est un candidat comme tous les autres candidats li mu ci gën a jaaxal mooy loolu c'est-à-dire que cette peur du président Ousmane Sonko dafa dem ba ça ça les a rendus c'est-à-dire que cest à que ils vivent une angoisse extraordinaire uniquement parce qu'ils ont peur de lui problème ils sont majoritaires dans ce pays liggéey nañu du loolu la ñu wax ah dañuy gagné dès le premier tour mais kon duñu bàyyi président Ousmane Sonko mu bokk buñ koy gagné ñu gagné ko dès le premier tour yanul maanaam pourquoi ils veulent pas comme bañ a bokk mais c'est parce bu ñu demee élection huit heures midi sax la gars yi doon wax mais gars yi nag huit heures neuf heures yi jeex incha allah day bokk mënuñu fexe ñoom doomu aadama gannaaw yàlla mënuñu fexe ba président Ousmane Sonko du nekk candidat à l' élection présidentielle dem fekk donc dañuy sol seen bopp nañu jox suñu fiche de parrainage ci jàmm Sénégal jàmm la ñu dëkk baa ngi ne tekk ñëpp ngi ne tekk di leen déglu mais am na foo xam ne bu fa eggee on l' acceptera pas incha allah. bon président Ayib moom. c'est lui le mandataire on sera là demain matin. Ah, euh, s'il le faut à 10 heures. au plus tard à 10 heures on sera là on nous a dit que le président est sorti. voilà on constate qu'il est sorti mais demain le président Ayib danañ ko gunge c'est lui le mandataire incha allah mu ñëw à 10 heures ñu xool lan la ñu di wax. mais lépp loo xam ne yoon may nañu ko daañu ko daañu ko daañu ko daañu ci tegu. mais lépp loo xam ne aussi politiquement dañ ko war a xeex daañu ko xeex donc ce sont les deux y aura la bataille juridique et y aura la bataille politique te ñoom xam nañu bu baax la puissance de Pastef sur le plan politique ñii du ñu am jàmm incha allah ba bañ fi jóge te ñoom actuellement ne sax yéen ñi général xam nga ni ñii amuñu jàmm parce que lii ñàkk jàmm la tëddatuñu nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu à cause du président Ousmane Sonko te il va continuer à enter leur sommeil il va continuer à les déstabiliser psychologiquement jusqu'à la fin jusqu'aux mois qui leur weer mu leen fi daje au maximum te incha allah daañu